mel ne tey fii dafa am benn xew bu fi am muy lu xaw a doy waar ci marché bi te bu ne bi xel yu bëree bëri dañuy xalaat mais nag tey am na fi waaye nag nañu bàyyi xel ne am na fi waaye du ci membre yi bi ñi nga xam ne mooy mooy wala coow yi ñoom dañoo dox ba muy ñaari sàmbaay bu yoo bokkuñ ci réseau bi dañoo dox ñëw fi kon loolu nekku ñu nit yi bàyyi xel bu baax a baax. li la. waaw mu am euh, ñaar ñoo xam ne fi doon xeex ba kenn ki jam morom bi. ba sonn ba waroon sàppoon ba jël ko kii jàpp nañ ko ba tekk ci loxo yi yoon waaye nit ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan ak ñuy déglu nañu bàyyi xel ne action bi fii ci réseau bi la amee mais ñi ko fa def ba bokkul ci réseau bi ñaari samba boobu yoo xam ne ñoo ba ba egg fi li muy nii daam fuñ toll la ñu ci xeex ndax man lii bi mu am sax man naa ne fekkuma fi ndax man euh, sànq laa fi jógee dem kër sëñ Modou Lo Ngabou ak ñi ma ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon dem ñu doon waxtaan ak moom ci lu def réseau bi ak lu ko jëmale kanam bi ñu demee ba tuddee euh, la ma benn ay kase bàyyi laa mën ko mbàkk bu ne seen bërëb bi da am na lu fa xew ma ne ko lu fa xew di mu ne ah, dafa am ñu fa doon xeex bi ma egsee nag laa fekk ngóor si tëdd après laa jël sama téléphone appel police ñu ñëw léegi sappoor nag jël na ngóor xam moom yóbbu na ko ki nga xam ne moo def euh, nag su noonu nag kooku bi police teg na ko loxo mooy ba yóbbu ko dem na mais nit ñi bàyyi xel lu mel ni non non man moom ñoom naa wax dëgg franchement parlé man maay président réseau mais xamu ci kenn wax dëgg xamu leen bu ma tesoon ñoom xamu amul kenn ku ma xam mais nag euh, nañu bàyyi euh, secteur bi fii ci gannaaw ñoom ñu bëree bëri ñoom dañuy wax ne fi lay wax ne ñoom fi mais li ñu bëgg nag mooy fii moom à part d'aujourd'hui moom moytuñ kenn kenn kenn koo xam ne da nga taxaw fii ba fi def naka suul noonu loolu lañ ko bay xel bu baax a baax ñoom ñooy def naka suul noonu ko def fii taxaw loolu lañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax chaque jour dañ fii ñu def def ay naka suul noonu loolu nag li bëgg mooy dafay jeex parce que réseau bi bu dee liggéeykaay la ñoom mu ne saa fu ne mandé ci àll ba bu ñëwee fii nekk xeex ak rayante ba kenn ki jam morom ba ba doy na waar trop trop trop trop trop léegi nit ñi nit ñi dañuy bàyyi xel lu jëkk rek ñu lay réseau lay réseau gaa bi laa mais ñi ki fi doon def dëkkuñu fii bokku bokkuñ ci réseau bi loolu man mën naa ko wax man bàyyi rek dañ leen a rax lan ngeen di bo ma ne lan ngeen di sàkk moom dafa am ñu leen di rax waaw loolu mooy bëgg ku ñu doole rek ndax sax su mel nii fi amee ñun dañuy jël teg euh, loxol police comme fekkee euh, police yi ñu ngi dégg bala ñu seetaan léegi li ñu bëgg ma ñu dimbali ngir yàlla gis euh, yokkoon suñu sécurité ba nga xam ne lu mel nii dootu fi am lii moom bëgguñ ko fi mosuñ ko fi bëgg nag rawatina tey loolu moom mosuñ ko bëgg. est-ce am. na fi am nag même yàlla dimbali moom année moo bi ñu fi amit man boobu daa fekk man ma dem Tivaouane jaay fekkuma fi lu mel ni mosoon fi am bu kooku yàlla def moom bu ko dajaay ñàkkoon bakkanam mais nag boobu ba léegi ba fi ba léegi ñu xeex pour bañ lii amati fi tey lii ba fi am wax dëgg yàlla man damaa fekk ma dem kër sëñ Modou Lo Ngabou moom laa doon waxtaan ak moom pour raxas réseau bi ak lu jëmee réseau bi mais bi mu ñëwee laa fekk lii am waaye daal nañu bàyyi xelam lii moom ñi ki fi def moom bokku